jërë ngeen jëf mbokk yi mu ngi noonu Demba Diop si borom Sabador bi le maire de la ville de Tivaouane moo woo la jeunesse du département de Tivaouane ak soxna Seynabou Gueye Touré Yaya Diallo ak tous les responsables yi nga xamante ñoo nekk ci département bi la jeunesse ñëw wuy si nag euh, nañoo àndandoo ñi ñëpp dem déglu ji nga xamante ni mooy Demba Diop si borom Sabador di kaddu yamu fa tëgg dimanche passé dañuy convoqué réunion pour l'ensemble de la xam ne ñoo nekk ci département Tivaouane bi nañu woo la jeunesse wax ak ñoom loolu moo indi ñu convoqué la jeunesse tey le mercredi pour wax ak ñoom li ma wax rek ñun yaatal moo tax ñu nekk fi liggéeyal population yi moo tax ñu nekk fi def njëriñu population yi moo tax ñu nekk dama wax ni nit ki nag mënoo ko liggéeyal te xamoo lan la bëgg loolu moo tax ñu woo jeunesse bi waxtaan ak moo ñu sur les dix-huit communes yi fi nekk. jeune bu nekk jël parole wax lan moo ko intéressé ak lan la gisee affaire politique bi naka la war a demee ñu déglu leen ñu pare ñu wax ak ñoom li nga xam ni moom lañ ci jëkk seetlu mooy na mooy nañ leen delloo seen responsabilité bopp il veulent que ñoom seen i yëf ñu gérer ko seen bopp keneen bañ leen ko gérer parce que c'est des responsables peut-être ñi ngi wax kenn ki jeunesse d'accord jeunesse lañu. mais ay responsable lañ tamit ndax am na ci ay chef de service ndax koo ci gis def na bac plus trois wala bac plus quatre wala bac plus cinq wala nekk ci beneen situation wala nekk chef d' entreprise ñooñu nag bu ñu soxlaa ne ñun ay soxlañu xam nga ni yow li nga leen di xalaatal ñoom war nañu mën a xalaatal seen bopp ba teg ko si yoon département bi nag dafa laaj àndandoo dafa laaj juboo nit ñi nañu bàyyi wutal seen bopp wutal sa bopp xew yi na defaral mbooloo mi moo xew ànd ak mbooloo mi di liggéey moo xew ku àndul ak mbooloo mi liggéey ça di kay que yow yaa ngi yàq te loolu baaxul li ñu bëgg daal mooy gone yi waxat nañook ñoom d'accord nañoo ak ñoom si ay kàddu ñaar yi lañu état bu njëkk mooy dinañ créer groupe boo xam ne group boo xam ne ñoom yi neen la ci département il ils sont dix huit dix yëpp balaa ñuy dem fii actuellement kenn ku ci nekk dinañ jël seeni i numéro ak seen i truc boole leen ñu def leen benn groupe ne chaque mois chaque quinze jours du moins dinañu daje ci benn commune commune ba ñu dajee mairie bi nga xam ne moo fa nekk moom mooy moom mooy gérer kii bi ak le président du conseil départemental parce que munoo daje ak maire yëpp tout le temps mais benn maire bu nekk boo ñëwee si commune am il représente l' ensemble des dix parce que ñu benn groupe rek lañu ñun du ñu ñaar bu kenn ñëwee rek teewal na ñëpp donc ñun loolu la ñu gisee yaakaar ne que loolu la ñuy def li ñu def nag mooy les moyens yi nga xam ne moom la ñu soxla. ñoom bu ñu waxee seen yëf ba teg seen cahier def seen feuille def seen cahier de charge indil ñu ñun ñooy wuti mooy jox leen ñoom ñu nekk si terrain bi. parrainage bi aussi wax nañu ak ñoom li ñu leen wax c'est très semp bëgguñu bëgguñu parrainage boo xamee ni que da ngay jël euh, euh, benn feuille rempli def rempli remplissage bëgguñu ko déedéet parrainage corps à corps la ñu bëgg dañoo bëgg ngeen dugg si kër yi wax ak waa kër yi seet ñi nga xam ne ñoo bëgg a parrainer ñu wax leen ñu parrainer ñu signer leen. c'est ça qu'on veut bëgguñu leneen bu ñu amee loolu bu dee am fukk yu wóor moom mu gënal téeméer boo xam ne dara baaxut vraiment loolu la ñu di demander moo tax ñu waxtaan on est d'accord sur ce principe wax leen ne ñu aussi schéma bi ñu koy defee wax nañ leen ko wax nañ leen naka la war a liggéey si biir commune yi wax nañ leen naka la ñu war a liggéey ci biir village am naa yaakaar ni buñ ñu fi jógee tey ñoom ñëpp ils sont préparés li nga xam ne moo ci gën a fës mooy ñoom ñëpp wax nañ ne que parrainage bi l'écriture c'est en majuscule la ñuy bindee tur yi bu ñu paree pare bu paree kooku na signé bu ñu paree nag am na leneen lu ñu wax ñi ngi xaar candidat bi mu ñëw fii biir Tivaouane bu ñëwee ñun ñoo koy recevoir mais boo yoo koy recevoir bu ñëwee xale yoo koy wax seen soxla bés bu fi ñëw du nekk euh, rencontre bu déedéet day nekk rencontre am ak xale yi ndax ñun mag yi pare nañu ba noppi donc xale yi nga xam ne ñoom ñoo xam li ñu bëgg am li ñu xam xam li ñu koy defee ñoom ñooy wax ak moom bu boobaa dañ koy di ëffal. di gars yi naan ëffal dañ leen di ëffal bàyyi moom moom mu waxante xale yi parce que ñun xale yi lañ bëgg mu waxanteel parce que avenir bi c'est les enfants c'est pas donc loolu aussi décider lañ ko si biir réunion bi donc li ñuy décider ci réunion bi bari na mais li nga xam ne moom la ñu bëgg a def aussi dinañ ko wax pour ni Sénégal yëpp xam ko en tout cas ñu ngi remercier xale yi ñëw yëpp ndax c'est des enfants qui ont de la conviction dañu am gëm-gëm. waaw mais xam nga ni ñu ko defee yomb na xam nga naka la yombe parce que ñi fi ñëw dañu ñëw ak seen conviction amul kenn ku ñu jox paas amul kenn ku ñu obligé kenn ñëw fi par obligation boo yi fi ñëw yëpp kenn ku ci nekk bi ngay ñëw am na amaana boo demee sax boo demee li nga ñëwee paas boobu rek dong nga yore ñëw voilà donc loolu kon ñooñu ay conviction moo fi indi donc bëgg liggéey moo leen fi indi am na ñoo xam ne aussi bëgg réew mi moo tax ñu nekk fi parce que xam nañu qu'on est là pour sauvegarder un État. Et cet État-là, pour le sauvegarder, il faut le faire maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. Légui, légui, là. Donc, si vous avez un West, lol motax ñi ngi remercier xalé yépp di leen nek seen téway na contane nañ ci yeen pour l'ensemble des communes ak l'ensemble des associations yi nga xamé ni ñoo nek ci biir commune bi té nga xamni ak mouvement yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di remercier parce que ñom ñëpp téw nañu ñoo bo teewaay boobu bobu ñu rafetlu ko mooy kenn ku ci nekk da ñëw sa conviction bopp ak sa yëfu bopp en tout cas ñi ngi xaar seen retour pare que ñoo léegi liggéey bi seen côté la nekk nekkatul suñu côté seen daje seen côté la nekk bu ñu paree bu ñu nee tel jour la ñu a daje Taïba Ndiaye jël na déjà engagement bi ne léegi la prochaine réunion ça veut dire que dans quinze jours Taïba Ndiaye la ñu koy convoqué non waaw donc léegi gis ngeen pare nañu léegi léegi loolu planning bi y aura un planning qui est clair ainsi de suite parce que loolu tamit il faut ñu koy waxanteeg maire yi aussi ñoom aussi parce que bu ñu jëlee rek jël lépp boo léegi ñoom tamit dañuy sànni seen bopp ci leneen en tout cas jàpp ni amul benn commune boo xam ne duñ fa dem daañu dem si commune yëpp bu ci nekk daañu fa toog daañ fa wax li ngeen wax seen njëriñ lay doon li ngeen ñuy wax aussi seen i biir li ngeen wax mooy rechercher leen ce qu'il faut dans les communes li manqué sànq dégg naa fi ñu ay affaire lampe yu manqué c'est normal mais moo wax leen benn secret bi ñu demee on a fait la réunion avec le ministre de l'énergie avec le PUDC amoon nañu quatre-vingt-dix villages à à à faire avec l'ANER on avait des euh, lampader pour chaque commune deux cents lampader yoo xam ne jox nañ ñu xam ne balaa de décembre dañ ko monter ak xam ngeen lan ak li nga xam ne moom la Senelec di def mu nekk ci biir programme bi nga xam ne moom la. électrification def donc am na électrification la ñu def bi ñu xoolee yëpp ñu ngi tourner autour de par exemple deux cent wala trois cent village yu ñu war électrifier dans le département loolu lu am importance la mais loolu aussi il faut ngeen xam ne que dañ dem xeex ko waxtaane ko seet ko am na ñun pour ñu defal ñu ko kon nag loolu dañ leen ciy sant aussi di wax ne que loolu la bëgg mu continuer parce que village yi dañoo war a am làmp comme ville yi ñu amee làmp donc loolu moom mooy suñu mbëmët. loo gi amee jeunesse bi ba pare dégg nga am nga satisfaction ñoom jël nañ euh, am naa satisfaction li ma ñoom sax dafa ëpp parce que xalaatuma woon ni dinañ toll nii ndax ci salle la ñu commencé réunion bi bi ñu duggee ci salle bi ñu ne non xajuñu ci salle bi nañ leen ñëw ci ëtt bi kon dañuy sant yàlla ku woote ci salle mujj ci ëtt bi bu ëllëgee ci mbedd mi lañ nit ñuy fekk. incha loolu moom bay ba ngeen gëm ko. ñun lu ñu def heure bi xeeb nañ ko xam nga lu tax parce que Sénégal moo ñu intéressé Sénégal moo tax ñuy wax Sénégal moo tax ñuy daw Sénégal moo tax ñuy def Amadou Ba nag suñu yaakaar la moom la ñu yaakaar nit ki nag boo ko yaakaaree doo yaakaar ba pare ne yaafus loolu baaxul boo yaakaaree ni da nga ci topp di daw ba nga xam ne ki nga yaakaar boo léegi xam ne ne yaakaar bi nga amoon si moom dëgg la ko defee ni ñi dañ ci mun a jàpp kenn ku ci nekk def li nga war def ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant asalaamaaleykum jërëjëf